di nuyu mbokk yi nga xam ne dañuy teewlu ak ñun jotaayu as-salafu ma alquran te di ko amee ci kër gi di la maison du coran jaalana arrahmanu min ahli alquran ñi nga xam ne ñoom dañuy déglu alquran te dégg ko daal di koy jàng te di ko jëfe yàlla saa borom buur bi subhanahu wa taala boole ñu ca eh, tey nag ñu fas yéene wéy ci ñi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaroon ci alquran al karim nga xam ne ñun mu jaadu lool ñuy xool tey jàng nañu daan doxalee ak téere bi te ñun ñuy roy ci ñoom lu bare bari ci al mawaqif ad dunyawiya ay taxawaay yoo xamante ne dafa jaadu ñun ñu jànge ko ci ñoom ndax ñoom ñoo di suñuy référence tey ñu fas yéene waxtaanee taabi'i bu màgg boobee nga xamante ne moom moo di Uways al Qarani nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane woon dénkoon Omar ak Ali ibn Abi Talib mu ne leen saa yu ngeen dajee ak moom sàkku leen ci moom mu jéggalu leen yàlla buur bi subhanahu wa taala Uways al ku mu jéggalu loon yàlla buur bi subhanahu wa taala saa borom yàlla daal di lay jéggal dañuy dellu ci nettali ki nga xamante ne moom mooy abi hurayra mu nekk xadis goo xamante ne nawfal ibni abdallah moom moo ko nettali mu jële ko ci daxaak ibni muzahim daxaak ibni muzahim moom moo ne abi hurayra moom mooy nettali mu ne dafa am benn bés yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog ci biiri saxaabam bi mu toogee ak ñoom mu daal di leen wax xabaar bu rëy mu ne leen la yusalliyanna maakum gadan rajulun min ahli aljanna suba de insha allahu taala dina am jëmm joo xam ne dina julli ak yéen ci jàkk ji moom bokk na ci ñooñu aljanna la ilaha illa allah bi loolu amee abi hurayra mu ne fa tamitu an akuna ana dalika rajul ma daal di mébét xemmem ma ne ak neexoon mu nekk ne man mii man maay kookee nga xam ne dinaa julli ak ñoom ci jàkk ji jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nekk ne man maa dëkkee aljanna ëllëg insha allahu taala abi hurayra nee ci ëllëg sa ba fajar jotee ma daal ñëw ma daal julli ci ginaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ya lahu min sharaf an tusalli khalf an nabiya sallallahu alayhi wa sallam saxaaba waxtu wu rek rek nanuy fàttaliku sharaf gi len yàlla meyon teranga gi len yàlla meyon fadla gi len yàlla meyon parce que julli ci ginaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxayalu maay أنت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم النبي يكبر النبي يقرأ سورة الفاتحة النبي يقرأ سور من القرآن الكريم ينتهي محمد عليه الصلاة والسلام إماجين nga nekkon ci ginaaw nga deg mu ne الله أكبر yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalam di jàng suratul fatiha yonte yàlla muhammad di jàng aw saar undur an taxiyal maay anta tara nabiya wa huwa yarka nga xool yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalam moom muy rukoo nga xool yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalam moom muy sujud kon saxaaba yi ngëneel gi dafa rëy lool lool lool moo tax ñoom suñuy nettali dañuy nettali lépp lu yonte bi sallallahu alayhi wasallam sallam defoon mu ne fa sallaytu maahum ma daal di julli ci ginnaaw yonte bi sallallahu alayhi wa bi nu jullee ba pare fa xaraja annaas nit ñi di génn di génn ma daal di toog rek ana hu ma toog rek di xaar kan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moom moo julli ak ñun ci jàkk ji tey wa huwa min ahlil janna nee na bi ñu jullee noonu ba nit ñi génn fa ida bi rajul abi hurayra nee ma daal di gis benn waay waa joo xamante ne mu ngi sul ngi sol ay yére yoo xam ne yére yu toxu la maanaam yére yoo xam ne suuf maanaam yére yu gënoon a mooy seer ci jamono jooje yére yi nga xamante ne daanaka mën nañu wax ne baadoole yi ñoom ñoo koy sol nga gis ko yére ya mu sol mu ngi xotteeku bopp baa nga jaxasoo xar kanam gaa nga pënd poussière mu daal di ñëw ba soo ko séenee ci jàkka ji da ngay naan kii ab dof la waaye xitam nit ku ñuul la laa ilaha illa allah nee bi mu ñëw mu daal di ñëw romb ñu ba ñëw ba ci yontu bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jox yontu yàlla muhammad loxo na bi joxee yontu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaa rasulallah ud'u li ya nabiyallah mu ne ko yontu yàlla muhammad alayhi salatu wasalam ñaanal ma kon nga gis ne kooku am na lu fa jànge tey jii soo gisoon yontu yàlla muhammad alayhi salatu wasalam gis na benn ndaw boo xam ne nee ne biñ ko laajee tey ji soo gisoon yonent yàlla Muhammad ci benn seconde wala benn minute lan ngay def ak moom mu ne damay photo ak moom wala damay sinabu ak moom subhanallah wala ndawi tey kii ba mu ñëwee ba jox fa wadaa yadahu ala yadi rasulillah mu daal di nuyu yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam mu ne ko udu li ya rasulallah ñaanal ma yow yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam fa daa lahu nabiyu bi shahada yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam koy ñaanal pour moom mu dee ci yoonu yàlla buur bi subhaanahu wa pour mu joxe bakkanam te yàlla rek a tax ak yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ndax bu yowmal qiyaama ci aljanna mu am daraja ak martabay ashuhada yann ko saa borom yàlla buur bi subhaanahu wa taala mais boole ñu ak ñoom ci aljanna yu kawe ya nee na bi loolu amee abi hurayra nee ne ma daal di sentir ci moom nanu ko séenee ak yërëm yu tilim nee ne ma daal di sentir ci moom almiskul adfar mu nekk xeetu laj koloñ parfum bi nga xam ne moo gënoon a neex te gën a seer ci jamono joojee nee ne bi mu ñu rombee rek ñu daal di sentir ci moom parfum boo xam ne comme parfum waa aljanna ma daal di ne yaa rasulallah ahuwa huwa yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax kii nga doon wax yonti yàlla muhammad ne ma naam innahu hu yonti yàlla muhammad ne naam waa ji la xoolal foofu nañ fa jàngal jàkk ji abubakar mu ngi ci woon omar mu ngi fi woon kibaaru saxaaba ñoom ñëpp ñu ngi woon ci saxa ci jàkk ji waaye ka yonti bi waxoon ne sa la yusalliyanna maakum rajulun min ahli janna ndekete yoog nit la ko xam ne soo ko xooloon sax da koy teg dof mu nga nekkoon ca koñ ga ca ginnaaw jàkk ja na mu balaa bale woon ci jamono yonent bi noonee la ba valable ba léegi ci suñu jàkk yi nan koy bàyyee xel suñu duggee na nañuy seetlu te setantal te wekk képp koo xam bépp jëmm joo xam ne ñëw na julli si ca biir jàkk ja a huwa huwa yonent yàlla Muhammad ne ma naam innahu huwa moom la innahu la mamlukun li bani fulaan te loo ci xamut de abi hurayra jaam la ab esclave la ngir sangam ñoom ñoo ko moom la ilaha illallah abi hurayra daal di yéemu mu yow ki yàlla yónni afala tashtarihi fa tu'tiqa ndax doo ko jënd nga daal koy goreel ko nga goreel ko yonti yàlla muhammad ne ko ya aba hurayra fa anna li dalik loolu mënuma ko ci sama kattan in kaana allahu yuridu an yajcalahu min muluki aljannati wa saadatihim su fekkee saa borom yàlla daf ko bëgg a boole ci buuri aljana ya waaye boole ko ci sangi aljana ya mënuma koo jënd yàlla buur bi subhaanahu wa taala moom moo ko bëgg a def noonu yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa aba hurayra yow aba hurayra inna allaha taala yuhibbu min xalqihi al asfiya al axfiya al abriya ñu taxawagum ci ñett yi yonti bi ne yaa aba hurayra yow aba hurayra inna allaha taala yuhibbu min xalqihi yàlla dafa bëgg ci jaamam ñett yi al asfiya ña nga xam ne ay tànneef lanu motax ci alquran da ngay gis yàlla dafa xamal yonti yàlla ibrahim ne daf ko tan xamal maryam ne daf ko tan ulul azmi yàlla daf len tan yonent sa borom yàlla daf len tan sahaba yi sa borom yàlla daf len tan waye اهل القران سابرم يلا yàlla تن ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا alladina با تصطفى دنجكاي baatu جوتايو اسلف مع القران jotaayu لا باسكو دنجكاي boppam la parce غودال في koy نيغا خامني اي bañ a guddal tànneef lanu ci jikko tànneef lanu ci lépp yàlla dafa bëgg jaam yooyu mu ne al axfiya jaam yoo xamante ne nit ñi duñ leen xam maanaam dañuy làqu nit ñi laa ilaha illa allah tey ji soo soo xoolee ci histoire dañ ciy gis ñu bari ñoo xam ne ba ñuy dund kenn du leen xam moo tax da ngay gis ne ba fii ci miim réew sax da ngay gis ne ñu baree bari ci nitu yàlla yi suñ demee ba jóge fi lañ leen di door a xam parce que saa borom yàlla bëgg bi mu leen bëgg moo tax mu nëbbe seen hayba ak seen daraja ak seen tolluwaay ci yàlla mu nëbbe ko jaam yi al asfiya al ñi nga xam ne nit ñi duñ leen xam mu ne al abriya ñi nga xam ne dañoo baax saa borom yàlla dafa bëgg ñetti yi tànnee fii waaye ñi nga xam ne nit ñi duñ leen xam duñu xam seen dayo ñi nga xam ne dañoo baax mel ni mbir mi dafa ëlëm abi hurayra ak saxaaba yi ba léegi ñoom comprendre guñu yonti yàlla muhammad commencé di leen mu ne alladina ida stadanu ala al umarai lam yudan lahum wa in xatabu almutanaimaati lam yunkaxu ay sifaat yu bari la dinañ ci ñëw ci jotaay bi ak bii di ñëw ñu njëkki ca ba ba ca bopp ba alladina ida stadanu ala al umarai lam yudan lahum mu ne ay jaam lañu yoo xamante ne suñu fëggee buntu kër autorité kenn du leen ubbi suñu bëggee rendez-vous ak ñi nga xam ne ñoom ñooy borom alal ya duñ leen jox rendez-vous léegi damay laaj njiitu réew yi njiiti réew ñaata baadoola nga mos a dalal pale tey jii soo jëloon million ngi baadoola am na ci ñoo xam ne xamuñu sax pale na mu mel am na ci ñoo xam ne xamuñu bureau kilifa yi nu ñu mel tey jii suñu bindoon lettre ne dañoo bëgg dañ la soxla lettre bi doo ci jot sax al axfiya alladina ida taadanu ala al lam yudan lahum saa yu ñu sakkoo daje suñu sakkoo rendez-vous ak seen njiit ya ak kilifa adduna ya kenn du leen jox ndigal tey jii da xool ba ci kilifa diine faw nga nekk ndombal tànk pour nga mën a am rendez ak ñenn ñi ñenn ñi pour ñu jox la rendez-vous seen kër yi wala ci seen jumaaya wala ci seen bërëb yi faw nga nekk ndombal tànk ci biim réew faw nga am dombal tànk wala faw nga am xaalis laa ilaha illallah kon mbokk yi lii moom moo tax jotaayu asalafu ma alquran di dugg fu nekk xam xamle lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo toog di ko nettali saxaaba yi mu ne bari na koo xamante ne daf lay ñaan randi bu doo ko foo doo ko faale te xamoo ne ëllëg bokk na ci buuri aljanna ya bokk na ci sangi aljanna ya boobu moom mooy bi jiitu kon xam naa foofee la ñuy yemale tey jotaayu asalafu ma alquran ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو multimédia مولين دي ميسين اميسيون السلف مع القرآن Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia.